mbokki internet yi nga xam ni yéenay seetaan NGTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne activé cloche de notification bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen mën koo gaaw jot ginnaaw bi nga xamante ni ki nga xam ni moo di Ayib Daffé nekk mandataire bu Ousmane Sonko moom nag demoon na fële ca DGE ngir récupérer li nga xamante ni moo di euh, fichier euh, parrainage bu Ousmane Sonko loolee nag ba jamono jii dañ ko ko mujjee euh, bañal ginnaaw bi nga xam ni. waa Sénat euh, muy kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllum élection yi fii ci biir réew mi euh, sàkk woon nañ ci waa DG ñu jox Ousmane Sonko li nga xam ne moo di fichier bi waaye ba jamono ji waa DG dañoo lànk ginnaaw bi nga xam ne ni ki tey jii ci alxames ji bi 15 euh, heures ki nga xam ni moo di Ayib Daffé dem na fa waaye lim lim wax dégg ngeen ko nee na ba léegi waa DG danoo lànk ngir jox li nga xamante ni moo di usman Sonko. kon nag ndax du waa Sénat ci boppam ñoom ñoo war a dem foqarti li nga xam ne moo di fichier bi ci waa DG. ngir jébal ko ki nga xam ne moo di ay Daffé ngir ñi nga xam ñoo di waa euh, farandooy Ousmane Sonko dem uti li nga xamante ni moo di ay parrainage ndax euh, parrainage ba mu tàmbalee ak léegi léegi mu yàgg waaye ba jamono ji euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Pastef wala ñi ànd ak Ousmane Sonko mën a gunoo jot li nga xam ne moo di seen fichier loolu yaakaar naan doy na waar